سرين بي أولادي وخل وخما كن كدل يومي ما يرضي ما فقل شيطان جد لقل سرين بي أولادي وخل وخما كن كدل يومي ما يرضي ما فقل شيطان جد لقل سرين بي أولادي وخل وخما كن كدل fegal seytaane jàdd ndigal lu may sonal bu ma ko gis lu may xatal bu ma ko gis lu may lëjal bu ma ko gis bu ma gisit lu may ragal fegal ma man ku may sonal fegal may ku may xatal ah am na ñu ne day buñ ko mënoon desee jëmmi Sëñ Tuubaa rek lañu lañu lañu lañu koy desee jëmmi sëñ Touba rek boo gisee portal portal sëñ sëñ sëñ sëñ Touba boo ko foto rek moo moo sëñ Bay Jaxate loolu la jox col maak lépp benn la addina seeti malaram képp te may ma yiwam wépp te may ma say gërëm ak fan yu gudd ak alal